الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass خادم الأمة maa ngi jël nuyoo boo xam ne bii ak ziyaara ak ndokkeel bu jógee ci son excellence président Macky Sall ko ci man ma ànd ak délégation bu mu yónnee ñu ràññee ci sama naataango ministre Pape Malick Ndour ràññee ci gouverneur région de Kaolack Ousmane Kane sous préfet bu département de Nioro ak sous préfet ak chef de service ak élu ñu àndal yëpp yéen nuyoo boobu ziyaara bi ak ndokkale bi teg ko ci sa loxo xam ne suñ ko tegee ci sa loxo yegg na ci képp koo xam ne kii njabootu Baay Ñas la yegg na ci képp koo xam ne kii taalibe Baay lu weesu loolu yegg na ci képp koo xam ne kii ci umma islamique bi nga bokk wala ci Sénégal nga bokk wala sax nga bokk ci islam wala nga ñàkk ci bokk li tax mu yebal ñu fii nag mooy dayo bés bi ak dayo ki nga xam ne moo waral bés bi Sénégal dafa am chance li nga xamee ne mën nañoo wax ci xarnu bi passé muy siècle bi passé du muy tàmbali mu am koo xam ne kii fii la feeñee ci Taïba Niassène mu nekk feeñeel boo xam ne bii ngëneel bi mu indi passé na Sénégal làmb na àddina bi yépp ba nga xam ne moom moo tax tey ñu waral bés bii di fàttaliku bés boobu nga xam ne moom la feeñee fii suñ koy fàttaliku nag liñ ci jublu mooy li nga xam ne liggéey na ko ñu xam ko liggéey ko ci diine lislaam liggéey boo xam ne bii li mu koy tàmbali di dem fépp ci àddina bi bay yegg Chine amul kilifa boo xam ne bii waxuma Sénégal waaye ci Afrique de l'Ouest wala ci Afrique commencé woon nga tasaare boobu di ko liggéey ci koom-koom boo xam ne bii fii ci Taïba defoon na fii ay tool yu mag a mag yoo xam ne yi yow tamit en tant que digne continuateur am nga ci projet yu mag a mag def ci li ma doomu aadama di leen yar di leen tarbiyul di leen jàngal kon bés bi su ko defee pour que mu nekk royukaay jëf jooju nga xam ne def na ko mu marqué taarixu Sénégal marqué taarixu Afrique marqué taarixu diine lislaam yëpp nit ñi di ko fàtte kon boobu ñu ngi lay ndokkeel ci bés boobu di ko ndokkeel bépp taalibe di wax ne tamit tey su fekkee ne toog nañ fi bër gi démb yow nga jógee Mali ah mën nañoo wax ne diñ continuateur li nga xam ne moom la bàyyi doon def def ko. di continuateur nga ci ni nga taxawee ci mbirum état ñu ngi fàttaliku loo xam ne li tamit taarix la mooy liggéey bi nga xam ne def nga ko Soudan liggéey bi nga xam ne yaa koy def pour ci àddina bi liggéey bi nga xam yaa ngi koy def pour bii fi nga xam ne lañ ko bàyyi woon nga liggéey ci liggéey boo xam ne bii ñëpp gis seen bët ne mi ngi yokk kon boobu dina taxaw ci ci wetu taalibe yëpp pour li nga xam ne mën na ko jii comité d'organisation bi lim li nga xam ne mooy service nañu ci gàmmu gi lim na fi mbirum ndox mbirum électricité mbirum nettoiement mbirum téléphone ak yëpp lim bi ni mu toll yéene bi nga xam ne moo leen ci am moo ëpp bi nga xam ne liggéey nañ ko fi kon lépp lu ñu daan def daaw ren jii service yëpp yokk nañu seen taxawaay loolu nag président soo defee ñun ñu yónni ñu fii suñu bopp leen ko defal. képp koo xam ne kii taxaw nga ci bés bii taxaw nga ci mbirum Baay sa bopp nga ko defal yaa war a gërëm ñi nga xam ne ñoo la ci boole kon boobu ñu leen di gërëm bu baax li nga xam ne nag moom moo de bi mooy nga ñaanal président de république nga ñaanal Sénégal pour que koom-koom bi yokk pour que jàmm sax fi pour naataange sax sëriñ bi kàddu yooyu le président Macky waxoon ne suñ fi ñëwee nañ ko jottali mu nekk loo xam ne lii ah ñu ne sawar nañu pour ñëw fi man ak sama naataango Pape Malick Ndour bi nga xamee ne ñoom la ñu taxawal fi président de la République ci bés bi di gërëm di leen sant salaam. jërëjëf monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam euh, monsieur Pape Demba Bitèye di directeur Sénélec ak Sénélec yi marhaban bihi marhaban bihi kon dañuy jàll ci kàddu al xalifa xaadimul umma rais al ittihad al islami al ifriqi wa munashitu al alaqat bayna al fayda wal alami al islami wal ifriqi صاحب خليفة صاحب الفيضة شيخ محمد الماحي شيخ إبراهيم ياس moom la ñuy jox kàddu gi mu tatagal ay ganam kon kàddu gi mi ngi jëm ci al xalifa xaadimul umma wa rais al ittihad al islami al ifriqi cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass. bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. monsieur le ministre maa ngi lay nuyu ak délégation bu tedd bii nga àndal ñu ñëw bokk seeg. seen bokk bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk moom mooy taarix ak nga taarix di doxee ñu ko moom. ñu ngi kontaan loolu bi nga xam ne yaa ngi ñuy fàttali ne dañu war dañu war a am mémoire dégg nga dara ko war a dañoo am itam référence ñu ngi ñu fàttali ci biir wax yëpp te mooy Cheikh Ibrahima ak li ñu liggéey pour doomu aadama ak li ñu liggéey pour l'islam ak li ñu liggéey pour Sénégal. yooyu ay jëfandikoo xam ne boo amee ay góor yu ko jëfandikoo dëgg-dëgg mën nañoo def lu càcc leen. danañ ne danañ gis conséquence président de la République ci taxawaayam bu tedd ndax taxawaayam bu tedd ci bëgg moo indi jàmm ji moo indi discipline bi moo indi barki démb waaw maa ngi soxla ma ko jàmm mu jàppandal ma ma dem seen bi mu mokkal yooyu yëpp su fekkoon ne président bu jafe la mooy président bu nekk pour bëgg la mën ñu yaakaar itam bëgg la nekk moom comme ni nga xam ne nekk na ko nekk na bu parce que yéen a ngi nii ñëw Sénégalais yi ñu ngi toog ak nit ñu ngeen toog parce que gis na leen xam na leen xam na ne amee wala nga ko amee wala ñu trahis amee wala ñu lor nit

ak jàngalam jëm si yéen ñi xam ne ku leen di jàngal li ngeen yomb a dégg xam nga ngeen dégg si ki ngeen ñu que ngi nii suñu ministre yi nii ministre ngi nii eh, ñu ngi yëg ñu ngi yëg ministre yi nii ñoo bokk yëpp ñoo bokk lu ñuy kontaan lool. ñoo bokk lu ñuy yaakaar ñoo bokk lu bëgg ñoo bokk fu ñu jëm te loolu a àgg ñu suñu bu neex la dëkk bu neex di tukki di nga xam ne Sénégal dëkk bu neex la xam nga neexaay bi mooy lan dañoo am jàmm neexaay bi mooy lan dañoo am liberté

li ñu mën a teg dina la reer waxtaan si wàllu waxtaan yi te ko dara du si nekk mu neex la réew mu am jàmm la réew mu baax la yàlla bu ko yàlla yàlla yàlla bu ko yàlla tas ci tas ko yàlla bu yàlla dimbali parce que Sénégal la patriote la patriote patriote mooy que bëgg Sénégal dimbali Sénégal ñu bokk patriote mooy jàng Sénégal ñu bokk patriote mooy àndoo Sénégal ñu bokk patriote mooy dimbalante ci ñuy développé nit ñi ñu génn ci pauvreté àgg ci dara boo xam ne ñoo ko mool seen bopp loolu lañ yaakaar ne mooy jikko patriote te kenn loolu la war a mel mais patriote rey leen lekk leen dóor leen xar xas leen saaga leen vraiment kenn xamul Sénégal yi moom fu mu ayoo dem si Sénégal boobu suñu parce que du ñun li nga wax fii ni taarix la tudd ko ci imam dëgg dëgg taarix boobu doo ci gis euh, di ànd ci pour Sénégal teranga na pour Sénégal ndax jullit ñi fi daje ñëpp yàlla ni dexe ci seen bi loo xam ne xam ci yiw ci mbaax te ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla yiw ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla baax ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla protéger ci seen zaahir ak seen baatin te amul kuy tàllal sa loxo jëmee ci yàlla ñaan ko nga xam ne ay xaas sa tubaab yi lañ te am na waaw benn nekk def na ko ci doomu aadama. ñun bés muy wax gis nga ni a alxuraan bi ci nekk nit ña ko jëfandikoo mu soxla dañ ko foree dañ koy suul dañ dem ci mu gis boo xam ne dina ci ko mu jënd def mu dem ci kër xam nga nag ko mu jeg yàlla mu ne baal na ma baal képp ku mu waaw képp ku dina ko doon wax ak nit ki boo ko faroon si wet ma màggal ko seen yàlla baal na baal képp koo xam ne bëgg na ko donc kon daje yi njëriñ yi doomu aadama moo ci bàyyeekoo jëm si ci doomu aadama ci yiw yàlla ci mbaaxu yàlla parce que yàlla sotteel ak ay secret yàlla moo taxoon ak mu koy doxale ci ñun Sénégal incha allah àgg na baax boo xam ne bu ñu tuddee gannaaw kanam rek lay jëm problème bu même régime parce que génération bu bees bi nangu ko fii dañu ko dañu ko gëm mooy ñu ci école français yeeg ñu ci école arabe yëpp dañu gis ne nit mën na dañu def problème loolu lañ ko am te loolu yëpp dëgg-dëgg boo gisee doon njàng bu ñu ko may ci xarala kàlla jënd ak seen mbokk yi ñu ngi jàng ah waaye ñu ngi jàng ngeen doon gën saaga saaga leen moom sama yoon ngeen doon gën xas xas leen moom sama yoon baal naa leen baal yow rek parce que sama yi seen mbokk ngeen xamee ko ngeen ku leen leen seen bopp ko ñaan waaye est ce que loolu mooy développé réew est ce que loolu mooy baaxal réew loolu du baaxal réew lii baaxal réew mooy discipline ñun bu see ñëwee ñu déggee loolu mooy société bi waaye su fekkee faale woo sa infection. loolu am nga teg ko su fekkee faale woo say chef religieux looy teg place am bu fekkee yéen mu say xale yi nga xam ne boo ma teg kër bu nga doon génn koy teg place am loolu yëpp dafay jar xalaat jàngat bu baax a baax te xam discours dañ koy discouré ñu jëm ci peuple boo xam ne dëgg-dëgg xam nañ jàng nañ mais gis na ba tey Euh, yeewute boo xam ne dina leen mën a may lu nekk rek yoo xam ne ñu koy déggee ba jàng rek ñu bàyyi donc ñu ngi ñaan yàlla Sénégal kenn kaa muy ñaan Sénégal réew mu neex la dalal ko dalal ko ay doomu ñàkk Sénégal réew mu kawe la dalal ko ay doomu naan parce que ak ci démb su naan yaakaar nañu am Sénégal bu ñu mën nañu ko kii bi yaakaar naa ne ci Sénégal bu gis bu la yàlla la yàlla la ngay julli bu ko di dugg boo ko jéem a gën a màggal boo ko jéem a gën a foog boo ko jéem a gën a tasaare ah ci seen débat boo xam ne njëriñu waaye tasaare na ci at ñu ko def rek toog ko rek Sénégal ci vingt siècle moo gën a benn réew arab yu ko gëm lii rek ñun dëkk bi ñëpp a ko jàppoon parce que ñii ngi tiit ñu bett leen takk seen kër ñii ngi tiit ñu yóbbaale leen ci dëkk bi kenn bañu tëddee ndax ku ne yëkkati ba mu tëddee ah waaye nag quoi tiitalee ko nit ñi nekk te it dara baaxul ñun ñu ne ñoom ñu ngi leen di ñaanal Sénégal d'abord pour yàlla yàlla yàlla mos a Sénégal ci bépp pexe boo xam ne daf koy jéem daf koy ñaawal. ñu ngi ñaanal Sénégal yàlla may ko jàmm ñu ngi ñaanal Sénégal ay doom yoo xam ne comme yéen am nañ kattan am nañ doole am nañ xam-xam am nañ xam-xam boo xam ne dañuy xam naka la ñuy euh, conduire ci jamono jafe-jafe laaj na réew laaj na ñu ñu nga xam ne mooy yëpp saa yu laaj na bañ a gis sabab laaj na nooy. ndax léeg-léeg lii ngeen di def nii yéen a ngi ñu toog ay président lañ bu ñu waxoon président ak ñi kenn xam ne ko nekk na loo xam ne loolu la rafet yéen waaw ah, loolu yëpp dafay wane ne man kenn laa ci yéen li ngeen bëgg a pour di ngeen fi ngeen bëgg a àgg foofu àgg bi ñu ñu ànd àgg fa yéen a leen ci àgg la ci jàmm ñu ngi gërëm président Macky ci taxawaayam parce que lii yëpp ku amutoon taxawaay bi mu am amutoon taxawaay ci seen teewaay ci ànd bu ngeen te yéen a ngi ànd bu ngeen ci turu président Macky Sall ñu ngi kontaan seen teewaay bi di leen yàlla yàlla may leen ndam ci Sénégal yàlla may leen seen gis-gis yi am pour Sénégal yi yàlla parce que lu ko ñu ci nekk nii lu mën lu mën lu mën kese mais kàttan bi ko defee ak sama kàttan bi ko defee ak bëgg-bëgg jërëjëf seen teewaay jërëjëf président de la République jërëjëf jërëjëf Al Khalifa dëgg-dëgg ñaanal nga Sénégal ñaanal nga jàmm Sénégal bay bay bay bay cam الكون وزمن بإسلامي وإيماني